imaam ñu ñu ngi lay fay sang bi di la wàccee sa wàccukaay di nuyu ñi ñu tàllal uh, antenne bi waaye itam di nuyu ñi nga xamante ne lañu ñu fas ne waxtaanal ci at mi nga xamante ne mooy at mu bees di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla sàmm aar ñu yokk sunu sutura lépp loo xamante ne jàmm nañ si yàlla yal nañ ko borom bi fay. imaam euh, ku wax dëkk wax stabilité te Sénégal dafa am fu mu toll euh, jaxasoo na bëri na coow bëri na ay problème te jamono ji bu ñu toll ci euh, kilifa yi ñooy wax kilifa diine yi wala kilifa aada yi wala ñi nga xam ne ñooy ay imaam comme ku mel ni yow lan nga mën a wax par rapport aussi sa dëkk bi ak gis-gis bi nga ci am ak stabilité bi daal stabilité dëkk bi dañu koy delloo ci borom bi tabaraka wa ngir eh, àddina bi yàgg na yëngatu waaye itam sant nañ borom bi bi nga xamante ne yàlla jox nañu lu mel ni lislaam di purifier sunu sunu gis-gis ak sunu xelaat ak sunu ci sunu doxuwaay eh, li tax ma wax eh, loolu mooy ne daf may fàttali Bilaal ci boppam bi nga xamante ne yonent bi génn na àddina mu dem ci xaprom tiislol di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal na leen yàlla defal jàmm mu ëlbatuku ñu ne ko bilal tiis nga lool li ngay wax dugg na ci xol lool waaye lu tax lu la def lii mu ne dama xamante ne ginnaaw yonent bi dina bari xëccoo dina bari xëccoo lool waaye ndëk xëccoo ndëk moo coow ñoo ànd mm-hmm. waaye ab jullit daal du xëccoo bu fekkente ne stabilité dëkk bi la loolu dañu koy delloo ci borom bi tabarak wa moom mi nga xamante ne moo ñu jox ku mel ni yonent bi ñu war ko roy waaye nag ku ne yonent bi ku nekk nag bu fekkente ne da ngay roy yonent bi stabilité daal ci xeetu yonent bi la fekk baax kon dañuy mën a ëlbatiku rek def li nga xamante ne mooy sunna odda sunuy kàddu yi nu mu gën a rafetee ñu daf ko lii yàlla namma ci nguur yàlla rek moo koy moo ko man parce que dañu ne ku ku ñu fal ku nekk borom bi tabaraka wa moo la fal nañu aussi euh, li nga xam ne mën na taalub dëkk muy ay wax yoo xam ne tegginuwul ci ay kilifa yi nga xam ne wax dëgg yàlla yàlla suñu borom moo leen fi teg ormal leen euh, lu mel ni réseaux sociaux tey aussi bu ñuy wax euh, ci loolu lan nga ma ci mën a sànni kàddu après nga jox ko euh, ñaan bi nga xam ne moom nga mën a ñaanal téléspectateurs yi Sénégal yëpp ci at mu bees bi ak daal sa kàddu gu mujj incha allah. may delloo askan wi moo di ne nanu rafetal sunu jëf nañu rafetal sunu ànd nañu rafetal sunu toogukaay bu fekkee bëgg nañu am jaamu yàlla bu stable jaamu yàlla boo xamante ne dafay ànd ak dafay ànd ak stabilité. mënul ñàkk waaye nag dañu koy delloo ci borom bi tabaraka wa taala waxoon naa ko sànq ne jox nañu ki gën ci mbindeef yi mu war nekk nag sunu royukaay ci anam bu rafet du ne dañu koy célébrer célébrer que yomb na du ne dañu koy jéem a daf lu ne waaye bi gën a óor daal mooy ñu roy ci jikkoom ji nga xamante ne mooy jikko ju rafet mën nag li may lancé nit ñi ci appel bi nga xamante ne la ñuy oote muy année bu bees bi ngalawaay nañu defar sunu ñu defar sunu du jikko mooy dine ñu defar sunu ànd ab ànd dafay rafet yonent bi bu demee ba am pouvoir ñi ko ko jox mooy saxaaba yi nga xamante ne ñoom ñoo mànkoon ànd moom ba jox ko li nga xamante ne loolu la séentu woon ci ñoom donc kon ab ànd dafay rafet waaye nag wax bu ñaaw loolu du du yëfu jullit wax daal bu jógee dafa war a rafet bu rafetul tam mu noppi loolu mooy yëfu jullit waaye nag boole ci nëg di dimbalante ci anam bi nga xamante ne mooy anam bi gën a rafet ab jullit daf dañuy dimbalante dañuy jàppalante waaye itam dimbalante ci koom-koom waaye itam dimbalante ci wax joo xamante ne wax ju rafet la loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne kullu maarufin sadaqa lu baax lu nekk sarax la waaye nga jël nit ki jox ko ay conseil nga jël nit ki utal ko yoon bu baax mu ne loolu ndëkk dafay nekk ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ak taawun maanaam dimbalante dimbalante dafay rafet loolu lañu ñu séentu ci askanu jullit waaye bu ñaawee rek nekkatul ci askanu jullit waaye ndëkk ñaar ñun nag yàlla li mu ñu defal si sutura mooy yàlla dénk nañu ay mag ñu baax nanu ko nangu nag ay mag ñoo xamante ne si lépp dañu ko doon rafetal mag ñi daan nañu wax ñu ne Seydi Hadji Malick wala Serigne Touba wala Limaamu lay wala Xaadimu Rasul mu ne ñooñu day dugaluñ ñu si lislaam waaye rafetal nañ sunu lislaam loolu nag ñu nekk loo xamante ne dañ ko war a di tiitaroo ginnaaw nag bu ñu yàlla dafee ay jullit daf ñu ay gor li ci des nag ñu defar sunu jaamu yàlla nan laax naka la parce que olof yi dinañu wax ñu ne mag ñi toggal nañ ñu waaye ngallaawaay nañu lekk lekkin bu rafet. kontaan nañ loolu ci kàddu gi nga xam ne euh, mooy imam Babou Diagne nekk imam ratib bu Wakaam mu nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy déglu euh, ci ci korité bu jotee wala tabaski jot euh, ci li nga xam ne toujours da koy delluwaat ci askan bi mooy ñu defaraat jikko yi te loolu dafa am solo. di sant rek di gërëm wax dëgg yàlla disponibilité bi ndax euh, ñoo ngi ko fekk ci place bi mu toog mu kilifa la waaye déplacé ko indi ko fii loolu dañ ci sant yàlla yal na yàlla guddal sa fan yàlla wéral cër yi euh, at mi yàlla may na ci kàttan ak wér euh, mën a accompagner njaboot bi jërëjëf imam ñu ngi lay nuyu merci beaucoup. chers téléspectateurs de EDB TV international et national tey ñëw nañu seet si waat keneen muy madame le maire muy premier adjointe au maire de la commune d' arrondissement de Wakam. muy euh, Adja Dog Gueye mu nekk koo xam ne aussi euh, responsable politique la euh, di yëngu ci politique lu yàgg di yëngu ci aussi li nga xam ne mooy développement de tout une communauté mu nekk koo xam ne aussi mu ngi mu ngi yëngu ci wàllum éducation au niveau de Wakam tey dañuy dañ ko seet si woon rek ndeysaan mu ñu taataan ay cadres aussi souhaiter meilleur vœu aux Sénégalais wax ci nga xam ne programme bi nga xam ne ci lañ nekk merci beaucoup. asalaamaaleykum ñoo yëpp. moo xam à travers les réseaux sociaux moo xam à travers d'autres chaînes de télévision euh, di leen jégalu si kaddu yi ñuy yëkkati waaye comme ni ma ko waxee rek di nuyu képp koo xamante ne bii kilifa diine nga wala nga nekk kilifa aada ndax euh, fi ñu nekk ni au niveau de Wakaam xëy na am na ndombal tànk bu ñu takkal te mooy xëy na adjoint maire lañ premier adjoint au maire euh, nekk cër boo xamante ne bii cër bu am solo la ndax dëkk bi ñu nekk mu di Wakaam dafa nekk euh, dëkk bu yaatu yaatu te xóot niñ ko mën a waxee ndax euh, village la mais mën nañu wax ne ville la ndax borom xam-xam yi ko dëkke mais itam ndax kilifa yi ko dëkke ndax itam rôle bi muy joué au niveau du Sénégal donc euh, ñu nuyu kilifa yi nuyu képp koo xam yaa ngi seetaan mais itam di nuyu parti bi nga xam moom laa nekk mooy waa PUR ndax au niveau de Wakam ñun ñoo fi secrétaire général bu parti de l'unité et du rassemblement donc maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen souhaiter une bonne et heureuse année ndax itam sant yàlla la dañu génn si at jëm si at te loolu kenn moo ko man muy sunu borom moom moo ñu may wér wér goo xamante ne ñu ngi toog fii tey di wax donc di ko sant di ñaan yàlla at mi yëm daxal ñu at mi ñu passé ndax itam yokkute moom ñëpp ko soxla kon ñoo ngi nuyu waa Wakaam yëpp du nuyu waa Sénégal yëpp di sant yàlla donc madame le maire tey euh, bu ñu waxee ci ci wàllum politique xam nañ ni wax dëgg yàlla dëkk bi fan yi wala mën nañ wax sax ay weer ci ginnaaw bëri na ay coow bëri na ay wax yoo xam ne wax dëgg yàlla ay wax yoo xam ne tegginuwul jëmane ci kilifa yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg eh, te Sénégal dafa soxla tey stabilité eh, lan nga wax ci loolu. nga li wax sànq Sénégal dafa nekk eh, dëkk bu particulier ndax li nga wax rek ay kilifa ñoo fi ne stabilité bu daan am fii kilifa yi ñoo tax ndax moo xam tijaan yi la moo xam murit moo xam xaadir yàlla dafa defoon kilifa yooyu noonu. kilifa tarixe yooyu ñoom ñoo ŋànkoon politique ndax politique ak diine defe naa ne même chose la waaw ndax sallallahu alayhi wa sallam defe naa bu ñu koy tudd ñu bari dañ foog ni diine ji rek moo tax fekk politique il était un homme politique spirituel ba pare newaale koo xam ne c'était un noom politique ndax politique bu ñu koy wax defar dëkk moo tax donc moom am na rôle bu am solo bu mu joué woon foofu donc pour wax ne rek Sénégal stabilité bi kilifa yi ñoo ko yor donc euh, bu di tudd kilifa diine di tudd safaan loolu day wane ne jikko yi wàcc na donc dañuy soññaat rek suñu mbokku sénégalais ñu xam ne ay citoyen lañ mais balaa ñoo nekk ay citoyen dañu nekk ay nit te nekk nit góor gi dafay wax ne ah, di buur di dammeel nekk nit moo ko gën bu ñuy wax nit nag nite nite mooy bàyyi xel ay valeur bàyyi xel ne doo doo mbaam bàyyi xel ne doo rab nit nga te yàlla da fonk nit fonk nit moo tax mu mu yëkkati ko jox ko lu ñuy wax ne alxuraan donc loolu moo war a tax mu xam ne même bu dee day def politique na def une politique vertueuse politique boo xam politique bu saine parce que même démocratie ñuy wax ni yëpp euh, Sénégal bu ñu ko daan tàgg dañu daan wax ne moo moo ëpp démocratie bu ñu daan wax Sénégal ay valeur ñu daan ñu koy wax mais léegi politique bi dafa yàq nit nii te pourtant nag euh, politique bi au contraire dafa waroon defar nit ñi moo tax ñun dañuy wax ne dañu oote politique de rupture politique boo xam ne dafa ànd ay valeur daa nit lu mu dugal lu lu éthique amul solo moo tax ñun sunu waa parti ak ñeneen ñi ma xam ñu baax ñëpp dañuy wax ne dañu placer l'homme au cœur maanaam nit la ñuy développé nit ku développé mooy xelam day développé ruuxam développé xolam développé buy wax mu xam li muy wax lan la buy jëf mu xam li muy jëf lan la ndax benn modèle la ñu am rasulullah mooy sallallahu alayhi wa mooy sunu modèle si politique mooy sunu modèle si diine donc man daal sol soññu Sénégalais ñu delluwaat gannaaw réfléchiraat xool même si aada waxuma diine rek mais même si aada kilifa yu am ay kilifa yu am solo la daawuñ daawuñ daawuñu wax lu ñu warul wax daawuñ jëf lu ñu warul def donc bu fekkee da nga am ay modèle vraiment moo tax man dafa am lu may métti li may métti mooy que mu doon des ministres wala mu doon des députés bu ñu demee ba seen cër di wàcc wala seen kàddu di wax waxet wax waxet defe naa ne vraiment jar na tiit daal ndax ñoom ñoo suñu kilifa quoi qu'on dise les ministres et les députés ce sont suñu ay kilifa lañ donc la ñu war a nekk des modèles pour la jeunesse mais bu ñu demee ba ñoom seen comportement vraiment nekk comportement boo xamante ni dafa wàcc fi ñu teg donc loolu euh, il faut se poser des questions moo tax il faut ñu delluwaat gànnaaw xoolaat bu baax fi ñu jëm waaye am na loo xam ne xaalis jaru ko am na loo xam ne alalu àdduna jaru ko ndax ëllëg da ngay da ngay layoo waaw moo tax lu jar a bàyyi xel ëllëg da ngay toog nga wax waaw boo waxulee sa say cër dinañ wax moo tax bëccëg boobu lu jar a bàyyi xel lu ñuy def lu si nekk la ñu bàyyi xel na incha allah ëllëg na jot nga joxe compte rendu voilà. yaa ngi ci dëkk bu mel ni Wakam dëkk bu bu am solo ci ci wàllu taarix ci wàllu diine ci walum culture cosaan ak aada euh, ci walum education ci walu santé ndax aussi le euh, premier adjoint au maire ban euh, lan moy sa relation ak monsieur le maire Abdoul Aziz Guèye monsieur le maire Abdoul Aziz Guèye mooy sunu maire buma ma doon wax kilifa wakam ñun ñëpp moy sunu kilifa quel que soit alpha bo xam ya xam Benno nga bokk ya xam pure nga bokk ay ñun ñëpp moy sunu kilifa ndax mom moy le maire de Wakaam ñun ñoy premier adjoint li ñu seq mooy diggante bu rafet ndax dafa nekk no nit ko xam ne tam ku fonk nit la xam nga nit ki su fekkee da am base religieuse c'est-à-dire da am éducation de base jàng alxuraan sa comportement du mekk comportement ak kii parce que politicien moom mooy mooy li ñuy wax rek mais moom neewul un politicien nit la koo xamante ne bi li mu seex ak mooy relation bu bu set ta relation bu set nit ki bu bàyyi xel suñu borom lu muy def lu ne day seex day day day jàpp ne nit nit la ko seexal maanaam nite mooy mooy nekk à la kii moo tax suñu diggante que mu doon man ak yeneen adjoint yëpp yalla mi ñu tiim xam wax dëgg ne relation bu rafet la ndax liggéey moñu bolé boole bolé ñu du leug am yéene liggéey waxam moo tax dama wax ne waa wakaam dañu xawa yakam yàkkam mais nañu dal tout rek dañu gis ne ki ñu ko seqal kat la mais mom moy jël xaalis société wala xaalis bop di dikati def ñun ñii ñëpp adjoint yëpp ku ne loy organiser ay jël sa propre xaalis def ko si def ko si def ko si organisation do xaar maire ci dara parce que ñun dañ ñëw uniquement pour poser des actes actes yoo xamante ne bi yalla lañ ci sét nag lépp lu ñu fay def amul lu ñuy def pour suñu propre intérêt lépp lu ñuy def si maire bi ngir yàlla moo tax parce que dañuy jàpp ne si si jaamu yàlla la parce que nit ñi ñoo jiwaat de hmm? parce que li sëñ Cheikh doon wax ne politique ah politique euh, du du métier diine aussi du métier métier bi mooy nga fexe ba di ñefe saa boo xëyee luy développer sa réew boo xëyee teg ay action ñu li ñu jot a teg si éducation yépp yàlla mi itam xam ne yu si bëri suñu xaalis la ñuy jël si def parce que maire bi amul xaalis bu yaakaar ne maire dafa am benn coffre muy teg da ngay nax sa bopp waaw maire yi dañuy da ngay recouvrer da ngay dem di di di di lijjanti ji waaw lijjanti ça veut dire que da ngay dem di fay ko ay impôts yu demee noonu mais du kees goo xam ne dafa ne foofu moo tax les gens se trompent lourdement le maire c'est un travailleur waaw ñun aussi ñi ma ko seexal mooy équipe municipale maa ngi le passage di leen nuyu di leen ziar ñoom ñëpp ay travailleurs lañ donc ñi si des mooy waa xam ñu patient xam ne réew kenn mënu ko def si benn at cinq ans la ñu may incha allah dinañu def bi ñuy dugg 2023 mille bi incha allah dinañ gis ne ñii ay liggéeykat lañ. ah di sant di di rek sénégalais yi si at mu bees mi yàlla defal ñu dal ndax dëkk bi yëngu na coow yi bari na te gis nañ ne wax dëgg ne yàlla même tey ak concert de casserole bi sax euh, yëngu daal mën naa wax ne moo fi ne. mais nag nañu dal parce que am na loo xamante ni bii buñ ko defarul duñ ko yàq Sénégal ñu ñoo ko moom Sénégal ay kilifa ñoo fi ne Sénégal ay nit yu baax ñoo fi ne dañuy ñaan rek ñu gën a dal ñaan rek yàlla mu nga moom mooy joxe dal yàlla defal ñu dal. yàlla defal ñu sago ñu euh, dugg si at mi nga xam moom lañ mooy ñoom ñu dugg si ak jàmm génn si ak jàmm salaam yàlla def mu nekk atam atam jàmm ak atum salaam. waaw kooku moo nekkoon euh, madame la première adjointe au maire de la commune d' arrondissement de Wakam mu nay muy Adja Adji Top Gueye mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla aussi euh, dalam ak teeyam ak jàmbaaram ci ci ci ci réew mi ci Wakam am na solo ndax ay référence lañ ci ñun. ndax daf ñuy permettre aussi ñun nga xam ne ñàkk nañ vraiment ci volet éducation moo ngi ciy def def lu am solo euh, di kontaan euh, ci ci dalal bi ñu dalal euh, di sant yàlla rek yàlla may ñu ñu fekkee waat ko at yu bëri yàlla seen projet yi mu antu ko wax dëgg yàlla booba mois yëpp gis si seen bopp ci barke yonent bi yàlla mën na ko yàlla yàlla defal jàmm may leen xolu muñ ndax ku ku ku ku jiite dara ah, du ñàkk ay nit aussi ngay dégg mais toujours fër rek liggéey mais yàlla na yàlla defal jàmm 2023 euh, yàlla may ñu ndam jërëjëf merci beaucoup. Euh, chers téléspectateurs de EDB TV international et national tey euh, ñëwaat nañ seet si keneen toujours rek ci mot de boo xam ni moo. ñaax la mu ñaan la ci at bu bees bi ñuy waaj a dugg euh, tey ñoo ngi toog ak Mouhamadou Makhtar Gueye mu nekk euh, membre ci euh, taxaw temm ba pare nekk un responsable politique à Wakam tey moom lañ seet si woon wax dëgg yàlla mu wax ñu aussi ci ci dëkk bi par rapport ak instabilité bi fi am ak lay ñaanal sénégalais yi ak lan lay wax ci année at bu bees bi di ñëw ak ak attente ci yaakaar merci beaucoup. maa ngi lay nuyu à travers une euh, tribune de presse bi muy EDB chaîne nationale et internationale de lancer un message de fin de fin d'année de souhaiter un meilleur vœu à tout le peuple sénégalais message bi ñuy lancer nag c'est un message de paix euh, un message de paix qui va à l'endroit de tous les Sénégalais en particulier les Wakamois actuellement cet havre de paix qu'on vit au présent je, je, je, prie que cette arbre de paix se conjugue au plus que parfait en 2023. Wakam se trouve autour de l'essentiel. Wakam moi yep ñi ngi autour de l'essentiel. Esprit positif boobu nga xam ne moo nekk ñëpp nga waa Wakam ñëpp ñi xam dañ jàpp ne Wakam euh, ñun rek ñoo ko mën a Donc c'est dans cet esprit d'unité, de paix, de solidarité, de partage la ñuy ñaanal que année bi ñu jëm lépp loo xam ne loo xam ne lu doon ñaaw rek yàlla na féete suñu gannaaw année bi ñuy dugg année de année de paix de fierté de bonheur et surtout de prospérité émergence pour Wakam ce secteur yëpp euh, je ne saurais compte te terminer faire ce message sans adresser un message de paix au maire le maire bi nga xam ne moo fi que année bi ñu 2023 mu nekk année boo xam euh, pose première pierre bi mu def que ce projet là se concrétise pour le bonheur de tout le peuple wakamois et pour le bonheur de toute la population sénégalaise je souhaiter une bonne et heureuse année di wax né yalla ñu yalla may atum jamm atum naataange atum euh, prospérité bonheur paix lepp lo xamné nit lu ngi koy ñaan ci lu baax rek que tout ça se réalise yalla ñu yalla ñep am jamm parce que jamm si la lépp xaj Wakam dañ ko xamone ci jamm jamm boobu nag nga xamé tay ñing koy dund ñing koy kii yalla nako yalla def parce que gis nañ né actuellement wakam? les gens ñi ngi ñëw di daje ñi ngi waxtaan et cet esprit positif que se se concrétise en 2023 ñu nekk ci ay affaire yo xamné lepp lo loo nga xam lu lu négatif rek ñu bàyyi ko suñu gannaaw ñu ouvrir des pages nouvelles pour un meilleur Ouakam jërë ngeen jëf euh, merci gis nañu Sénégal hmm. euh, dafa am instabilité instabilité ci ci ci domaine yëpp hmm. té euh, lo am jàmm moo ko hmm. tey lan nga mën a wax ci ci ci instabilité bi ak lan xam nañu mën a jàpp en 2023 par rapport ak ñu xew yëpp ci waaw Sénégal tey boo koy jàngat da man jàngat bu gàtt laa ci am parce que dama Sénégal tey xam nga dañuy wax or di wax jamaa di wax lépp mais loolu yëpp pour nga tal ko day fekk jàmm jiitu parce que Sénégal bu ñu dañ naan c'est un de la teranga c'est un de paix havre de paix boobu Sénégal am loolu la ñu ñëpp nawee Sénégal boo waxee dañ koy naw ci jikko dañ koy naw ci comportement mais tey boo xoolee li ngay dégg ci Sénégal da ngay laaj ku rek parce que xamoo li xew am na lu ma ko mos waxoon naa ko parce que mos naa dégg kilifa gu mag mu koy wax mooy Cheikh Maktoum suñu wasil al Maktoum mu ne euh, dëkk bu tolloo ci màbb ku yëngu rek yaa ko daane donc ça rappelle à que ñu ku ne war nga xoolaat defar sa taxawaay parce que ñun par acteur politique man j'aime même pas le mot politicien on a on a le droit de lancer un message de paix et de solidarité et un message responsable parce que tey ñun amuñu lu ñu Sénégal Sénégal tey bu tàkkee ñun ñoo si sonn donc muy kuy wut ak ki yor qui yor dafa am responsabilité maintenir la paix Qui wuti aussi tam am responsabilité conserver cette paix là donc on veut une paix durable une paix pérenne une solution durable et des solutions pérennes pour le Sénégal di wax surtout les jeunes moi j'adresse un message aux jeunes que jeunes n'ayons nañu xool bu baax de ñu teg parce que gars gens, bu ñuy wut lu ne dinañ la ko wax mais ëllëg lu añ du mais lu mat a la nañ xol bu baax li ñuy def xam Sénégal suñu Sénégal bu baaxé suñu galal suñu Sénégal Le Sénégal kenn du ko liggéey ko dul ñun di wax ne jeunes yi au travail c'est ça le mot de ma sama message parce que dëkk kenn lu ko tabax ci caab caaxaan dëkk buñ ko bëggee tabax dañuy nangoo liggéey di wax jeunes nañ nañ sob fa gën a farlu gën a jublu ci liggéey xam ne année yi ñu jëm on va sur une de solide année année électorale année électorale boo ko déggee xam ne lu ne mën na ci xew mais lépp nañu àndaat daal te man je reste positif ah parce que Sénégal coow bari na fi mais lu ne xew na fi mais lépp ci dal rek lay mujjee léegi nag cet esprit boobu nga xam esprit positif moi je vois toujours les choses du côté positif di wax ne jeunes yi nañu ànd ak dal nañu ànd ak sens de la responsabilité ku si ne mën nga ànd ak fi ngay faat ku ne mën nga ànd ak ki ngay àndal mais dans un sens de responsabilité surtout nga xam ne dañu nawlante respectante di waxante dëgg surtout parce que c'est un message boo koy adressé da ngay un message de solidarité de paix et surtout de vérité dëgg mooy njëkk mooy mujjee boy and nit ci deug na and ci deug bu fekke nak nit ki fam la lay ci ak njariñ amu fa bu ko top c'est le message que je lance à toute la jeunesse di wax ne lepp lo xamne ne waxoon nañ ko rek c'est dans un esprit positif ñun amuñu xàjji amuñu set ñun amuñu par exemple parti amuñu ki ñun wakam lañu am lépp lu jël rek wakam lañ ci tek suñu baromètre wakam mo nekk suñu baromètre démb moy nekk suñu baromètre suba mo koy nekk ëlëk légui nak loolu nak mooy suñu baromètre mooy suñu suñu suñu suñu suñu suñu sukkandiwaay lépp lu ñuy ñaan rek dañuy ñaan yàlla ñu yàlla defar jàmm Sénégal rawatina wakaam bi nga xam ne amuñu dara lu ko gën parce que nit ki mënoo màgg wala nga ëpp daraja ba ëpp daraja fi parce que fii bu baaxee ñun la baaxal bu baneen di wax nag bonne heureuse à tout le pour la population wakaamoise euh, salaamaaleykum euh, chers téléspectateurs de EDB TV international et national euh, tey dañu ñëw nag seet si soxna Xadijatu Taaxa Sëy doomu xutbu taaxaa sëy euh, moom nag lañu seet si tey euh, bëgg waxtaan ak moom mu sànni ñu ci kàddu rek ci nga xam ne ñoo ngi ci fin d'année bi euh, ñu ngi waaj a dugg 2023 mu nekk une femme responsable politique nekk koo xam ne tamit wax dëgg yàlla képp koo xam ne rek kilifa la ci dëkk bi am na moom relation te ndaw ñi aussi déggal nañ ko ndax day orienté xale yi ci lu bëri soxna si ñoo ngi nuyu. maa ngi leen di fay yéen waa EDB di leen ziyaare ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam sant euh, sama ñaari wayjur maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci lii ngeen def tey macha allah ndax lii yombul ndax romb buntu kër yépp ñoo fëgg sama buntu kër gi duma def lu dul recevoir leen ndax seen télé bi ngeen yore ni def naa fu mu ni moom la àdduna di wër ndax télé boo xam ne loxaam dafa set ña ca nekk di ko doxal ni seeni loxo set te ñun ci loolu la ñuy dox macha allah mu nekk télé bu am ñam euh, balaa may njëkke fenn dama leen di encourager ba pare parce que loolu moo jiitu nag dëgg yàlla ndax boo duggee ci kër da ngay jaar ci bunt bi boo bëggee tëb ci palanteer bi dafay metti kon yéen waa télé bi balaa may wax dara damay kontaan di leen remercier ba pare waaw ndax ku gërëmul nit doo gërëm yàlla kon foofu laay njëkk mooy di leen gërëm ak équipe bi nga xam ne moom ngeen àndal dama leen di gërëm bu baax a baax a baax di wax seen liggéey bi ngeen di def nii ñëpp ñu ngi koy rafetlu seen émission yi ñëpp ñu ngi koy suivre macha allah affaire bi defe naa ne gën na siiw gën na neex macha allah ah waaw doomu bu taaxaa gi wax nga dëgg man la Xadijatu say Xadijatu Taaxaa Sey doomi xut bu taaxaa macha allah waaw xut bu taaxaa moomu eh, mooy sama wéjur nekkoon wakam nekk kilifa gu mag nag macha allah nekk nitu yàlla boo xam ne ba mu benn werante la moo ma jur yàlla def ma joo eh, nekk politicienne waaw yàlla def ma doon doomi nitu yàlla ba pare albatiku nekk politicienne am ci ngërëmam nag am ci ak ñaanam Euh, tàllal ko loxo moom góor googu tey mu ne ma doxalal nga dem ndax looloo tax euh, sañ-sañ bu ma am rek euh, di ko doxee fii ci digg wakaam rek maa ngi wékk ci ñaanu wejuru bu góor boobu mooy xut bu taaxaa boobu di nuyu waale sama yaay de passage Adja Fatou Gueye Wade amam ngërëm moomu macha allah maa yu nuyu waaw di wax rek ci politique bi nga xam ne ci la ñu nekk ndax politique moom yàlla dafa def macha allah ñu bëgg ko bëgg politique bu baax a baax baax nag di ko dund ndax nit di nga bëgg dara te doo ko dund te man damaa bëgg politique di dund politique ba pare di def politique gu développement aussi waaw di def politique développement euh, parce que bu ñu nee réew te bu réew ma développé wul du dem macha allah te bu ñu nee réew bu ñu nee góor ne jigéen ndax boo seetloo ndaje yu bari yooyu gis ci euh, àdduna bi bu ñu ootee jigéen ñi ñoo fay ëpp. kon euh, jigéen ñi macha allah kenn kenn kenn demul ñu des euh, defe naa ne ku nekk gis na réew mi ni muy tëddee fu ñu teg ñaari góor teg fa benn jigéen kon euh, développement boobu nga xam ne ci lay nekk di ko dox ak politique bi mooy taataagal nit ñi ndax politique toujours dama koy wax politique du noonoo politique buñ koy def. pour defar dëkk bi ñu nekk la politique pour sottante xel la politique pour jàppalante la politique pour defar jàmm la parce que am réew boo xoolee ñu ne politique boo en général nit ñi nga xam ne dañ koy def di def fitna wala dara mais ñun la ñu yàqal parce que boo yeewee fitna ci dëkk defe naa ne yow doo ca yam ndax euh, ki toog ci kër yee fitna àddina yëngatu ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu daf ñuy gën a sooxee dafay gën a delloo ci suñu réew ci gannaaw te defe naa ne boobu politique Sénégal euh, soxlawuñu ko li ñu soxla mooy réewu jullit bii nga xam ne réewu jàmm bii nga xam ne fa la ñu nekk mooy jàmm la ñu bëgg salaam la ñu bëgg dal la ñu bëgg ànd ceeg jeunes yi nag macha allah ak euh, kilifa yi ci dëkk bi maa ngi leen di nuyu jaraaf yeex ba yeex saltige yeex ndey ndey ji réew yi nga xam ne maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare lu bari bari bari macha allah kilifa yi nga xam ne fii lañ nekk ci dëkk bi nekk di doxal dëkk bi nag di dox lu baax di ko wax macha allah àndax ay jeunes àndax mag ñi àndax ndaw ñi ñu ngi ci politique bi ñun ñu ngi ci social bi ñu ngi ànd ak bàjjenu gox yi ñu ngi waxtaan ñu ngi ci transformation yi di ànd ak jigéen ñi ànd ak calebasse yi def calebasse defe naa ne fii wakaam ki ma ko ne xam ne samp naa fi ay calebasse yu bari macha allah tey jigéen ñaa ngi cay nekk di ci doxal di ci jariñu te defe naa réew bu ñu koy wax wax développement defe naa yooyu daf ciy baax. macha allah di def di def li nga xam ne di ànd ak jigéen ñi ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a seen dërëm ak seen ñaar nga xam ne moom la ñu am bi ko dajalee boo xoolee lundi ba samedi calebasse yooyu jigéen ñi moom la ñuy def bu ñu ñëwee natt seen ñaar téeméer ak seen solidarité nangam dugal ko di ko leplante loolu la ñuy jël di ci jënd ay daare di ci jëmbalante xa ma dara mais xameel ba ca nekk mm-hmm. ndax loolu day day day doxal réew ndax am na ñoo xam ne tey boo leen gisoon tey xamantewuñu xëy na dañuy déggante turu nit mais tey ñu bari xamante nañ à travers calebasse boobu te calebasse boobu lan moo ko indi euh, ci si si la jógee ci social la jóge waaw ci politique la jógee ci social la euh, euh, la jógee social wax ci politique mhm. mhm. mhm. tey ñu nekk ci fin d'année ñuy waaj a dugg ci 2020 alhamdulilah lan ngay ñaanal Sénégalais yi ak lan ngay souhaiter jàmm jàmm ndax lu dul jàmm sax jàmm ko gan macha allah maa ngi ñaanal ñëpp yàlla ni ñëpp am jàmm di jiital ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi yàlla na leen yàlla yëkkati ñu koy ñaan ci at bu bees bi yàlla na leen yàlla yëkkati ñiy toog seeni kër aussi mënuñoo jóg ñu ngi ñaan aussi yàlla na nañu leen leen yàlla suqali yëkkati leen ñoom tamit ñu jóg ba mën a dem doxi ji di ñaan jàmm ci réew mi ndax euh, Sénégal ñun jàmm la ñu xam ci jàmm rek lañu lañu war a dox ndax ñun yalla dogal na xamuñu guerre man mm-hmm. nañu reyante suñu biir way kenn duñu laal non lañu yalla bindé kon da rew mi maangi ñaan képp ku mëna dalal sa waaker ta taataagal leen ci jamm ak salam nañu def jamm nañu wax jamm maa ngi koy ñaan autorité yi nga xamné diko di ko ñaan kilifa diiné yi ñuy taataagal nit ñi di leen wax ci jamm bi nit ñi dal nañu def jamm parce que ñun xajuñu ci dudul jamm mm-hmm. ñu ngi talal loxo ñepp ndax ñun ci jàmm la ñuy dox jàmm la ñuy wax jàmm la ñuy waxtaane jàmm la ñuy yendoo jàmm la ñuy tëddee kon bu ñu sañoon Sénégal ñëpp ci jàmm la ñuy nekk maa ngi leen di ñaanal at moo xam ne atu yokkute la atu wér la atu sutura la atu dal la yàlla nañu naqar dëdd ñun ñëpp ci barke Seyduna Muhammad aley salaatu wasalaam ah di ñaanal tamit suñu mbokku chrétien yi nga xam ne ak chrétien yi nga xam ne tey macha allah amuñu lu dul lii seen Noël yi paase ak lii tey ñu ngi leen di nuyu de passage ndax ñooñu tey ñun ñëpp benn lañ ndax tey ku ci dagg sa yaramu nit deret moo ci génn mm. te ñun ñëpp yàlla moo ñuy sàkk ndax boo xoolee bible bu la ca nekk moo nekk ci alxuraan bi kon ñun ñëpp a yem fa yàlla maa ngi leen di ñaanal ñoom tamit bonne et heureuse année di ko ñaanal àdduna yëpp di ko ñaanal waa Sénégal ñëpp di ko ñaanal surtout waa Wakaam aussi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di di di ñaanal waa télé bi macha allah du ma noppi di leen ñaanal waa télé bi Ibou Thiam sama frère euh, maa ngi lay ñaanal sama frère boobu nga xam ne macha allah euh, nit ku baax la euh, Ibou Ibou li nga bëgg ci télé bi yàlla na la ko suñu borom defal ak équipe bii nga xam ne ñoom nga àndal suñu suñu suñu. suñu frère bi faa ñu ngi lay nuyu yow tamit vraiment parce que seen dal ak seen yar moo indi lii ndax ku nekk xam ne tey bés bu xat la. ku nekk xam na ne tey euh, jigéen ñëpp a ngi si waaj bi defe naa ne suñu mbokku chrétien yi sax ñu ñoo leen gën a yanu waaye fin d'année bi moom dañ koy ànd doox ñëpp rek ndax lépp jàmmale rek mooy jàmm ji nga doon wax sànq Moustapha ñu ngi lay remercier suñu frère yow tamit di remercier ñëpp maa ngi kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di nuyu sama frère nag de passage macha allah en tant que responsable des femme coordonnatrice ànd taxaw wakaam maa ngi nuyu équipe bi ma ci àndal ñëpp di nuyu sama ab Ablaye Ndiaye sama xarit macha allah nit ku la coordinateur bi nga xam ne nit ku baax la koy dox ci sociale aussi maa ngi koy nuyu de passage di nuyu wakaam ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal ñëpp loxo. Euh, di nuyu rek euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall Euh, nit ku baax kooku nga xam ne macha allah def naa ne ba mu fu ñëwee def li mu def ci dëkk bi ñëpp gis nañ ko dëkk bi lépp émergé ndax émergent la wax macha allah di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax monsieur le président ñu ngi lay nuyu. di nuyu premier ministre Amadou Ba mi nga xam ne barki démboo Ndiaye ñëw na wakaam ñu ngi lay nuyu premier ministre. àndaax euh, ministre yi nga àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu euh, Fafana ala ministre Abdou Karim Fafana ministre Mbaye Ndiaye yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, kàddu yi nga xam ne moom la ministre Amadou Ba wax mu nekk kàddu yi am solo lépp rek mooy li ngeen ma posé question léegi mooy li ngeen wax léegi lan laa xam ci dëkk bi jàmm ji mooy jàmm la wax ndax mbooloo mooy doole vraiment maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ndax mënumaa toog ci plateau bi te nuyu ma euh, son excellence wax dëgg yàlla suñu président boobu nga xam ne mooy Macky Sall mi nga xam ne defar dëkk bi la def liggéey dëkk bi ak équipe bi mu àndal yëpp maa ngi koy nuyu di nuyu far ba Ngom honorable ba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax sa taxawaay ci dëkk bi rafet na macha allah rafet na lool lool lool lool ngeen jëf. Euh, salaamaaleykum chers téléspectateurs de EDB TV international et national. Eh, tey eh, dañu set si eh, soxna ami Lahi nek nekk si service médical bu université nek comptable matière bok ci mouvement aussi des femmes MB3D bok ci dëkk bi bok ci dëkk bi defar dëkk bi donc lolu aussi mu nek lu am solo tey tay lañ seet si putaran daal pour tatane ay kàddoom ñu ngi ni digital ay cadeau chers téléspectateurs salaamaaleykum wa rahmatullah euh, gannaaw avant tout damay sant yàlla di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa mu jàppale ñun ñëpp di wax rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp man Amilaye jaañ laa tudd dëkk fii ci Wakaam di nekk université aussi di fa liggéey def na euh, nekk euh, service médical di personnel comptabilité des matières euh, foofu daal laa nekk fa laay liggéeye di di yëngu aussi fii ci Wakaam mouvement boo xamante ni mb 3 lañ koy wax bokk ci dëkk bi boole kook defar dëkk bi ci loolu lañuy la ñuy yëngu mouvement bi nag mouvement bu mag la ndax mouvement bi site Fadia lañ ko sosee suñu présidente di euh, di ku ñuy wax Adja Valir sàmb mooy suñu présidente mouvement bi dama daan jóge fi wakaam di dem foofu di tout le temps mu xool ba xam ne daal mu ne ami jaabante bi ni mu méttee nii pourquoi pas mënoo ubbi foofu benn mouvement bo euh, bokk ci dëkk bi dafa dëkk bi ubbi foofu benn section bu ko defee liwaa waa Cité Fadia di am yéen waa wakaam ngeen di ko am xanaa di leen souhaité atum jàmm di leen wax mes meilleurs vœux de bonheur santé prospérité euh, di leen ñaanal aussi at mii ñu dara dugg si muy deux mille 2023 bi ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu dàq atum mille vingt deux ndax at atum 2022 bari woon bari woon na ay jafe-jafe torop ci côté bu nekk nag côté politique côté social bari woon na torop ñi ngi ñaan suñu borom bi nga xamante ni mooy maye nañu suturaal taxawuñ ci zahir ak ci baatin ba atum 2023 bi dàq atum 2022 bi maa ngi souhaité mais meilleurs vœux plus particulièrement à notre présidente Adja Valir Samb ak membre mouvement bokk ci dëkk bi defar dëkk bi ñépp ak mouvement bokk ci dëkk bi defar dëkk bi wakaam egsi na ñi ngi leen di euh, souhaité bon et heureuse année euh, di sargal sama membre yi ci biir ku mel ni Adja jooma Gueye ay joom Xadijatu Sëy euh, Ndey Lobe ñoom bàyyiwuma kenn daal ñoom Abi Ñas bàyyiwuma kenn ñoom Nafi Ndooy macha allah boo limee daal da ngay juum wala doo matal waaw donc képp kuy membre ci biir rek euh, ñi ngi lay souhaiter les meilleurs vœux de bonheur macha allah di ñaan at mii ñu jublu daal na doon atum bonheur santé réussite yàlla may ñu wér ak wérle may ñu na xaalis bu bari waaw xaalis ci la bokk ndax jamono toll nañ foo xamante nii soo yor soo yorul doo dem waaw <laughs>